مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يينا دون خال وا جوربير ساس با تابينا نيوم دنج دان واخ ني نين سوبي سيرن نجاي رحمان تي مونو فخي با جوت سي كوي ديغ سي دك ييب نديغال تابينا جوغي سيرن عبد الرحمن مباكي با تخنا سيرن نجاي رحمان جامونو جي جي جي ماي واخ اك يين تي جوربير ياموك الله با 1 مي 2024 بي نيو كيب كو خامني يا فا نيوك يوا لا نوي جيل تي كاتيا توپ توپ تي واي مبكي فان département amé ñuy xana fe nga xamante moy keur zak Boudin en face stade Ely Manel Fall fofu la ñuy amalee paj mi incha allahu taala. waaye mbokk yi amna ci ño xamante ni ñu gis sëñ bi ndax séré ne te metti na lool ndax xam nga Serigne fall Rahman Ndiaye dëkk bu mu tàbbi gis ngeen na muy mel fa tabarakallah ba tax na ño ñoo taala le 3 mai yamok aljuma may nañ leen ab ziar gu reuy Serigne bi mo leen ko defal surprise ziar ba nga xamante ni. ca ñuy indi biteel ya ca ndox may jolli ca la biteel yay daw biteelu ndox mi faj ñi nga xam danoo taxawoon biteelu ndox yi nga xam ñi ñaa ngi koy raaye seen aajo di faju ñii di ami këyit ñii ami borom kër ñii di ami soxna mbokk yi bis boobu la trois lay doon fan lañ koy amalee xanaa fële ci Grand Diourbel ca Tripono Grand Diourbel ca Tripono fa lay amee incha allahu taala waaye nag mbokk yi ku wal mburu tudd dëkk nag ba am na ñoo xamante ne nii dañ cee jàpp lool sonn ci lool ba tax na daal ngërëm daal faw mu ñeel leen ñooñee kenn jiituwu ci ki nga xam ne nii mooy Amath Dieng di baayu Bamba di fubal ci équipe nationale ñoo ngi sant ki nga xam ni nii mooy Serigne Boubou wañ di sant maam jaaram Mbaw ndax taxawaayam ak pasteefam góor gi gumba ci woon ñu ngi koy sant di ko gërëm Baye Cheikh Fall sant nañ ko docteur Malick Guèye sant nañ ko fa tabaarakallaahu di sant mbooleem koo xamante ni rek jàpp nga ci liggéey bi ku mel ni monsieur le maire ku mel ni préfet ku mel ni commissaire de police ak waa jur Diourbel yëpp bàyyiwuñu kenn mbokk yi bis baa ngoog Serigne Fallou Ndiaye Rahman ca Diourbel incha allahu taala ah ñu ngi ciy woo ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu